daal hmm. pour hmm. yaa rabbi. diine bi ñu ko bokk ak yéen ñi jox taw si. ma wolof seetlu waaw. jërëjëf. waaye incha allahu yërmande la. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw comme keneen ki mu tudd noonu suñ woy jur boobu di alaaji Duudu Saaxo mhm. wax dëgg yàlla moom itam eh, kilifa la woon goo xam ne ci Serekunda mhm. eh, kenn bu mag la woon xam nga dafa am mag ñoo xam ne soxna Ayda ñoom itam li ñuy def ci société eh, def naa ñu jël ki ci laan sant yàlla ay kilifa yu tedd yooyu fi ndax kilifa leen yoo xam ne te ni suñu moo leen ko defoon di ko jaale suñu Ousmane moomu toog ndax wax na jikko yi nga xamante ne lislaam dafa soxla ci borom xam-xam wax na ko ci docteur Mangom Cissé moomu nga xam ne yàlla dogal na man jot ñoo minentu lool waaye xam naa ko bu xam ay doomam Euh, muy boo xamante ni moom sëñ Ousmane waxee noonu rek la bindoo woon. Mhm. ko jaale nag réew mi yëpp. Euh, muy boo xamante nag wax dëgg yàlla am ko dootul yomb ci àdduna ci réew mi. Mhm. Euh, ñun it di ndaw nag man ndaw laa di wax ak yéen. Mhm. xaw nañoo am tiit moom ci jamono yi nga xamante ne borom xam-xam yi toll noonu ñu fi jógee mhm, te ñu gis na ndaw ñi xam-xam sàkku xam-xam ci ni ko war a sàkkoo mhm. mu des bu baax a baax a baax mhm. loolu daal mooy ñu xaw tiital te xanaa ñu gën ñaan suñu borom mi leen fi indi woon mu wutal ñu ñeneen rek ñoo dinañ mën a wut seen place waaye nag dana xaw a jafe wallaay wallaay ndax yi xam soobu ci xam-xam ak teggin yaag yar ya moo xaw a def wallaay wax nga dëgg loolu moom rek lañ ci biiree waaye ñu ñaan suñu borom jéggal leen way fa suuf seen doom asalaamaaleykum waaleykum asalaam jërëjëf alhamdulilah jërëjëf dafa am keneen ku nekk ci line bi xanaa ñu dalal xelam rek alquran wax na ne ma nansax min ayatin aw nunsiha naati bi xayri mithliha نن أمتي يلا ياكار نن إن شاء الله تعالى يلا دنا إندي ينيني نت يو خم ندنا يكونتيني ميشن بي إن شاء الله تعالى فتبارك الله دكتور نجيل كيشلان بسلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله yëkkatil kàddu gi tuuti rek baaba. Ah, maa ngi lay nuyu. waaw ah, kay. di ah, bi ñi sa télé bi tuuti. wala nga sori ko. waaw. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam waa baax na. sëriñ bi ngeen gis noonu. sëriñ Jibril Goudiaby. ak ñi feetoo si ndeyjoor moom. docteur Mangom. waaw docteur Mangom. léegi léegi dama si télévision. maa ngi ñaan yàlla mu may Mm-hmm. ñun suñ jumaay fii mm-hmm. gannaaw yàlla ak moom moo tax jumaay bi ubbee na ko mm-hmm. ñun ñu ngi amee jumaay fii am na ñu fi taxaw ñu ne jumaay bi du nekk jumaay ndax duñ ko julli waaye Seex Jibril Gujaa mii moo taxaw xulowul kenn ehulakin waaye ndikal yàlla laa waxtaan si diggante ñun ak ñooñu ñii waxul jumaay du nekk jumaay moom moo taxaw foofu ba mu nekk jumaa ba yàlla nekk tey ñu ngi julli ji alhamdulilah ko ñaanal yàlla pour mu yàlla mu may ko ajana bu wér. amiin yaa rabbal aalamiin may ko ajana bu kawe kawe. amiin amiin. Euh, ngeen baal suma olof setul. baax na baax na. waaye ñaar ñi nekk noonu. Hmm. waxuma Gambia ñoo ñàkk waaye àdduna ñoo ñàkk. kon ñun ñëpp ñu boole ñaan yàlla mu may leen àjjana bu kawe amiin yaa rabbal alamin amiin jaay seyda ñooñu seen njaboot yàlla ñu sel xol sedda mhm. ah, ak ñoo yee naa ñoom ci mhm. yàlla def naa tey ñu nekku fa mhm. waaye maa ñaan yàlla mu may leen fan bu gudda ak weer gu yaram jërëjëf waaw ñu ngi sant mbokk bi soxna Aida docteur Mangom am na beneen melo boo xam ne bëriwul ci ñun tey hmm. mooy dënn bu yaatu ci mën a e, mën a wax ak jëflante ñiñ bokkatul diine moo ñu ko ëppale woon hmm? waaw hmm. ak li muy fiir fiir ci diineem ji waaye dafa gëmoon ci interfaith dialogue waaw maanaam yeneen diina yi waaw ñëpp ay xaritam la allo salaamaaleykum bisimilah allo wàññil télé bi tuuti wàññil télé bi wàññil sa doole waaw hmm. aca bisimilah allo waaw bisimilah salaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah jaamu ngeen jàmm rek alhamdulilah allo hello bisimilah. ñu ngi laa dégg waaw maa ngi kontaan ci programme bi. alhamdulilah. man la Ahmed Sada Dabo. ah Dabo Dabo. Mangom. Mhm. man daara yore xale fi ñoo mokkale alquran. Mhm. waaye mos naa ak docteur Mangom Cissé. Mhm. nekk na sabab pour mu am ay alquran yu bare bëree bëri ah, xale di si jàng wallaahi amma lu aju si Cheikh Jibril Mahdi Goudiaby mhm. kooku moom suma sëriñ mhm. jàngal na ma mhm. soo gisee tey man tamit maay wax si rajo yi maay egg si mimbar yi gannaaw yàlla ci jumaayam bi laa ko jàng bon li may digal ñëpp mm-hmm. xale yu oote dem si yàlla mm-hmm. nañ jéem ñu jël tànk yi ñaari borom xam-xam yi mm-hmm. surtout Jibril Kujaab bi nga xam ne moom laa gën a xam wax naa ne moom jamono bu ma door daawaam fekka nit yi seen understanding bi rëyut fii si islam waaye xulawut ak kenn mhm. xeexut ak kenn saagut benn kilifa mhm. te lim bugga jootale jootale na ko yëpp mhm. bon képp koo xam ne yaa ngi oote si yàlla na nga jéem nga jël tànk yooyu noonu jërëjëf waay udoo ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati al hasana jërëjëf wa jaadilhum billati hiya ahsan jërëjëf waay bon maa ngi jaale ñëpp jërëjëf maa ngi jaale suma bopp jërëjëf maa ngi laa jaale yow aj Ousmane. jërëjëf maa ngi jaale tamit suma imam bu mag bi imam Massola Ka mm-hmm. ak euh, ñëpp bépp ñi nga xam ne ñu ngi oote si jëm si yàlla tabaraka wa taala jërëjëf jibril daal si lu mu dundee mooy kitaab ak sunna alhamdulilah yan nañu yàlla dimbale ñun ñëpp di dunda si kaw amiin yaa rabbal alamin wasalaamualeykum maa ngi ko ñaanal yàlla dugal ko àjjana ak amiin amiin ak bépp ñi aji jiitu yëpp wa ma zalika alallahi bi aziz inna zalika allah yasir wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina jërëjëf Daabo jërëjëf waaw soxna Ayda am na point bu wax ne bu am solo la waaw mooy